malheureusement li tax ñu doon xeex pour euh, Macky Sall jël réew mi man mi bokk naa ci ñi amoon yaakaar bu wér a wér wér bu yaatu bu kawe que ni bu yëgsee lu bari dina soppeeku euh, malheureusement tel n'est pas dama koy jël man sama bopp fu ma daan fayee tey ñaari junni daanaka fay naa juróom-benn junni te loolu du ñëpp ñoo ko man waaye nag bu fekkente ni campagne dafa jot ñu dugg ci biir askan wi kenn ku ne ñu am lu ñu yëkkati jox la pour nga woteel leen ala kulli al xaalis boobu boo ko jëlee ba woteel leen juróomi at suñu toogaatee naka jekk dañ koy jëlaat te yokk courant yokk carburant moo gën a gaaw ci état nangu la mu joxoon askan wi euh, ku waxal dëgg rek te wax te yàlla tax euh, Bambey département Bambey gisul boppam ci gestion Macky Sall rawatina nag commune bi nga xamante ni Euh, man fi laa dëkk gisunu loo xamante ni nii lu extraordinaire la wala lu nit ñi mën ne doot baaraam ne lii tey euh, lu am jafe-jafe bi ci jëkk mooy lëndëm gu dëkk bi lëndëm tey bu guddi jotee soo amutu fit lool doo génn su guddi jotee tey am na ci quartier yoo xamante ni comme fii ma dëkk tey lëndëm na lëndëmaay boo xamante ni yéeme na Euh, li nga xamante ni sax moom la population yi di def pour mën a génn ci lëndëm googu mooy kenn ku ne yaa ngi fexe tey euh, def sa làmp sa buntu kër bu lay leeralal donc lëndëm gi métti na la ci dolli ko mooy euh, ndox mi aggul fi mu war a àgg yépp ci commune Bambey quartier yi nga xamante ni mooy quartier yu bees yi ñuy sanc nit ñi am nañ ci jafe-jafe ci wàll woowu

élection locale 2014 amoon nañ ambition boobu donc euh, loolu moom du du tey lañ ko am comme ambition am na nu yéene laxasaayu buñ ca àggee te tal ko ak bakkan ñu dugg ci askan wi waxtaan ak ñoom euh, bu nu wóoloo alhamdulilah bu nu wóolul noo xam ni lañ waroon def def nañ ko